noo leen di nuyu di leen ziyaara di leen ci bis bu tedd bii sunu waxtaanu tey dañ koy jëmale ci tomb bu am solo te moo di xusnul xuluq wala ahamiyatu xusnil xuluq xusnil xuluq solo si nga xam ne jikko ju rafet lislaam am ko ci jullit dafa wàccuwaay wu màgg a màgg a màgg ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa ak ci njàngalem Cheikhul Xadim te mën njàngale mi la suñ delloo ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa eh, bu ñu xamee eh, ahamiya bi mu ko jox mooy solo su ko jox wàllum axlaaq ne mooy diine ndax mu ko ko mas a dikkal laaj ko ne ko yaa rasulallah ma diin yu mu yàlla yónni lan mooy diine mu ne ko ad diinu xusnul xuluq diine mooy jikko ju rafet mel leen tontu bi xaw naa gàtt ci moom mu dem delsiwaat jaar ci loxol ndey jooram ne ko yaa rasulallah ma diin yow yàlla yónne ana lan mooy diine mu ne ko ad diin xusnul xuluq diine mooy jikko ju rafet mu des jaara ci càmmoñam laajoo ko lan laajoon lan mooy diine mooy ko diine mooy ju rafet mu des jaar ci gannaaw ne ko yaa rasulallah ma diin mu ne ko amma tafqahu ad diin xusnul xuluq xanaa danga du dégg diine mooy jikko ju rafet kon diine ni mu yaatoo ak ni mu bare lu mu làmboo su ko tënkee ci benn baat ci ne mooy jikko ju rafet day wane kon jikko ju rafet am solo bu ma am solo ak wàcc bu mu am ci lislaam loolu nañ koy mën a dégge mooy mboolem lii lislaam jàngale lépp loo ci xool rek dangay gis ne jàngale jàngal maanaam defal jikko moo ko tax a jukk mën na yu jël juróomi ponk lislaam yi ci misaal ba ci njëkk mooy gëm yàlla gëm yàlla su ko nit ki xasee soxlaatu ñu ko watal ab sàndarma wala policier wala mbaa mbaa ko koy wanu yoon su doon moom donga mays naa bañ a tabaxi tribunal ak i police ki yu mel ndax la fay tax a dajeeg tax dugg du ko def moom du ko wax day nekk mooy doon sàmm boppam bii tegu ci aw yoon moo tax yonente bi salaa suñ jàngaloon nu nenu saa boo gisee nit ki muy def lu ñaaw rek jàppal ne ba mu koy def gëm yàlla nekkul ci moom waaye gëm yàlla ku ko def du wax lu ñaaw du ko def laa yazni az-zani xiina yazni wa huwa mu'min wala yasriq as-saariqu xiina yasriq wa huwa mu'min wala yashrab ash-shaaribu wa huwa mu'min nee na amul kenn na koy njaalo lu may ne ba mu koy def gëm yàlla nekkul ci moom amul kenn na koy naan aw ñollu lu ne ba mu koy naan gëm yàlla nekkul ci moom amul kenn koy toxal alal li jàmm lu may ba mu koy toxal gëm yàlla nekkul ci moom kon la muy tekk mooy ku yàlla ne ci moom kon def lu ñaaw ko wax mu dellu waxaat ni tegtale nit ki ngëmam li ñuy tudde an nifaaq mooy koo xam ne gëm yàlla matut dafa làmb ak ak ak ba ci joxe mandarga mandarga yëpp mandarga day tegtale kon ne ne comme ne ci yow gëm yàlla nekkut ci yow ayatu munafiq salaas ida xaddasa kadaba wisa xaasan fa jële ci benn raay wisa eh, xaaxa daxadara kon yëpp kon melokaan la yoo xam ne kon ku ku ku gëm du ne ci yow kon mooy gëm yàlla kon dafay defar jikko su ñëwee ci julli jël day mal defar defar jikkoo ko taxoon a jóg ndax suñu boroom nee na inna a tanha anil fahshaai wal munkar julli dafay tee def lu ñaaw di tee def lu ñu sib nit nag bu demee ba defatul lu ñaaw defatul lu ñu sib ko boo jikkoom baax na jikkoom rafet na kon jikk gannaaw julli day def ci yow lool kon mooy jil julli kon dafay defar sa jikko ba dootoo jëf lu ñaaw dootoo ko wax su ñëwee ci eh, koor wala boog infaq ñu njëkki ko zakat suñu baan dafa waxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko xud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha yow mi gëm yàlla yow bi na nga jël na jël asaka ci alali jullit ñi soo ko jëlee day dana laabal seeni xol dana sellal seeni bakkan nit bu xolam laabee bakkanam sell jikkoom rafet na loolu lañ ko doon doyee kon gannaaw kon joxe kon day def ca moom loolu kon mooy joxe dafay defar jikko nga ñëw ci koor suñu doon ne yéen ñi gëm yàlla dañoo farataal ci yéen koor ni ko ñu ko farataal ci ñële fi jiitu woon lu tax ngir ngeen ragal yàlla la laallakum tattaquun ragal yàlla na ba xasee ne ci nit ki lépp a mat na sëkk nit buñ koy yar ak a jàngal teg ci yoon mooy bëgg ragal yàlla ragal yàlla ba xasee am na sa jikko rafet na sa jikko baax na kon koor dafa ñëw kon ngir dafa jikko nga ñëw ci xaj alxaju ashur maalumaat fan farada fihinna alxajja fala rafasa wala fusuuq wala jidaal fi lxaj suñ ba ne aj day ay ay ay jamono la ay weer la yu ñu xam yu ñu fixé kiñ farataal ci moom aj nag ba mu tàbbi ca bu mu defate lu ñaaw bu mu ko wax ñetti baat la jëfandikoo foofu rafas fu suux rafas baat la boo xam ne jëf rek lay tegtale am ci yu dagganoon sax ci yooyu yoo xam ne dañ la ko tere joo jamono lu mel jege say soxna ak la caaju jégal jé jéle laa nag lu xaraam fusuuq di baat boo xam ne dafay dafay dafay dafay aju ci jëf rek jépp jëf ju ñaaw ci fusuuq lay tàbbi ci ci dafa boole ñaar dafa boole ñaar fusuux dafa boole wax ak jëf ji daal nag wax képp la moom mooy dàgg santeeg weranteeg xuloog yu mel kon inna baat buy tegtali jëf dong baat bi tegtali wax dong baat bi tegtali jëf ak wax boo boole kon mooy lam juddoo mooy kon lépp lu ñaaw ci wax ak jëf boo xasee xarmal xaj tere nañ la ko te jëpp jëf ju ñu lay digal na nga ca bàyyi nangam mbaa na nga ca na nga ca sàmmonteeg nangam julluwuñ ca nga sàmmonte woon ca ca jëmmi jëf ji rek bu jeexee mu jeex waaye na ci jullu mu nekk ak tàggatu lu mel ni koor lañ la cee sant ci ay melokaan dañu bëgg nga tàggatu ca jàng ko su koor gi matee fekk say ci tàmm ko sa ruux min ko nga mën ko wéyal su dee xaj noonu ba ci àtte lislaam yi sax ko def nangam nañ ko def nangam defal jikko ko taxu na jikko su lislaam di wax ne ku sàcc nañu dagg loxoom ku njaalo te sange wut nañ ko doo téeméer yar ci kanam mbooloo su sange woo ñu raj mu ko ba atee jeex loolu defar defar defar ji ko taxoon jóg ndax ki bëgg a toxal alali jàmbur su xalaatee kuuñ ba maa tax mu dellu gannaaw ca loola ki bëgg a njaalo su xalaatee gàcce gàcce yi am mbaa mbaa fekkee ku sa ku ku ku ku sange sangewu la raj mu ga su ko xalaatee maa tax mu dellu gannaaw ak yeneen ak yeneen kon mën nga ne kon jikkoy yàgg lislaam di jàngale yëpp yi mu digle yëpp defar jikko tax ju moo tax mu tëgg ko ci ne ad diinu xusnul xuluq diina mooy jikko ju rafet ah, am na ko ma ñëw ci moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam laaj ko ne ko ah, laaj ko ab dénk da laaj ab dénk mu ne ko laa tax bab bul mer ko ci ndax bi mu ko nee bul mer mu ne ko dolli ma mu ne ko bul mu ne ko dolli ma mu ñetti yoon bu ci nee bul mer la koy wax kon mel ni kooku jàngoro xolam ci la nekk su ko bàyyee rek jikkoom baax ndax ni jëmm yi wutee la ni jàngoro xol yi wutee jàngoro ju nekk la koy faj kon lay faj lay faj jàngoroom mooy mooy bàyyi mer tamaa ne ko dolli ma mu ne ko atbii sayyi'ata alxasanata tamhuha mu ne ko dolli ma mu ne ko xaalixi naasi bi xuluqin xasan kenn rek ci benn baat lay ma moom laa tax dab rek ki dana ko denk mu mu ne ko na nga ragal yàlla foo mën a nekk na nga làmboog ragal yàlla mu ne ko dolli ma leneen mu ne ko na ngay tofal jëf ju rafet ci ju ñaaw maanaam soo jumee ba def lu ñaaw boo ko soo ko tubee ba noppi ko defee na na nga fa def lu baax bu ko defee dana ko far mu ne ko dolli ma ko mu ne ko ànd ak nit ñi ci jikko naa nga ànd ak nit ñi ci ci jikko ju rafet nag mooy koy àndal fexe ba tane ko na koy tane mooy bañ a toppante mooy da ngay jéggal ko la tooñ di jox ko la xañ tey jox ko la dog lu jafe la nag waaye mooy jikkoy sang Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne juboo naag sama borom ci yet jubóog samay moroom ci yet juboo naag sama borom ci lu mu digle ma def ko lu mu teree ma ba ko lu mu dogal mu neex ma juboo naag samay moroom ci lu ñu am ma bàyyee leen ko lu ma am bokk ak ñoom te ko ba ci tooñ ma jéggal la loolu da ko doon ci yonent bi sallallahu alayhi wa mooy ji koy sang mooy kon doo topp kenn kala kala kala kala dagg wàcc yow nga boole ko ci sa lépp kala xañ lépp yow la nga am nga bokk moom doo tooñ kenn te ko tooñ nga jéggal ko loolu mooy ànd ak nit ñi ci jikko ju rafet laaj nañu nu saas ne ko lan mooy gaaf dëgg-dëgg mu ne ashu mu suu suul xuluq gaaf dëgg-dëgg mooy jikko ju ñaaw nag la ñuy tudd lu la ñuy tuddee gaaf waaye dëgg-dëgg gaaf mooy jikko ju ñaaw kenn laaj ko ne ko ayul amali afdal jan jëf moo gën ci jëf yi mu ne ko xuluxun xasan la gën ci lépp daal mooy làmboo ji ko ju rafet mu del waxaat ci beneen xadis ne yàlla jomb na bind ab jaam jox ko bind bu rafet ak jikko ju rafet ba noppi di ko tàbbaleel sawara ne yàlla jomb na loolu bind nit jox ko ta jox ko ab taar ak ji ko jaafet ba noppi di ko tàbbaleel sawara maa xasanallaahu xalqa xalqa abdin wa xuluqahu fa yut'imuhu naar kon ñu xam ne kon jikko jaafet kon ci la lépp nekk kenn ci saxaaba yi dafa dafa wax yonent bi saa su ne ko am na soxna soxna de soxna diw sàngam ndey ko baax la ko farlu la ndax moom day ba ci gëm yépp da koy yendoo woor guddeem yépp da koy fanaane nafila waaye jenn seen sikk daal la mooy jikko jaa rafetut day xas ay dëkkandoom teen wax lu ñaaw ku ñaawal ku mën a xas la ku mën a xulal ko ñaaw lamiñ la teen ko accam laa xayra fiha hiya min ahli naar ne kii nga ma wax dara ci aw yi nekku ci woon te ci waa la bokk da ngay xool kuy fanaane nafila di yendoo ba nag bokk ci waa lu ko yóbbu mooy ñàkk ñàkk rafet jikko kon la muy tegtal mooy su jikko ji rafetul kon loo jëf lu mu bari bari ak lu mu baax baax baax du la jariñ dara loolu lay teg te am na benn xadis bu koy bu koy gën a bu koy gën a dëggal sax mooy suul xuluqi yufsidul amala kama yufsidu xillul asala salaa sa nee na jikko ji ñaaw dafa yàq jëf ni vinaigre di yàq ak ak lem vinaigre soo ko sotti ci lem na nga ko yàq neen noonu la jikko ji ñaaw di yàq jëf kon balaa jëfa baax kon moo doon joxe ju ñu nangu kon faaw jikko ji rafet da koy tungoom kon la am solo la laaj ne ko yaa rasulallah ayul muminina afdal afdal af uh, uh, kan kan kan ci kan ci nit ñi moo gën kan moo gën ci nit ñi uh, mu ne mu ne mu ne mu ne ah ahsanuhum xuluqa ka ci gën rafet jikko rek moo ci gën te newoon na jikko ju rafet mooy bindub yàlla bi gën a màgg xusnul xuluxi xalqullaahi l azam bi def yàlla li li li gën a taaru ci li yàlla bind mooy jikko ju rafet newoon na it du ngeen mën a matal nit ñëpp ci seen alal ku ne nga jox ko ku ne nga jàppale ko ci sa alal déedéet waaye na nga leen matale ñun ñëpp ci sa jikko ju rafet nag waaye ña nga ma dimbali ci saal dimbali leen waaye ña nga xam ne mun mun mu mun leen matale nag nga nga jëflante jëflante bu rafet subaa da koy bàcc ba saa su wàcc rek mooy jàkkaarlu ni kon ko xar kanam bu rek loolu ba tey ci loolu sax eh, àtteb sarax la am dañuy nee na eh, nit ki kemtul eh, julit bi ak topp yàllaam mi nga rafete ci rafetuk jikkoom ak mbañam rusam ci la am xelam di màtte ci la ak jaamu yàlla bi di rafete salaasam itam waxoon ci eh, ci solos solos jikko ju rafet wax ne ki ma gënal ci yéen te ki may ki may gën a jege bis penc mooy ki gën rafet ci yéen jikko inna ahabbakum ilayya wa axrabakum min ma yawmal xiyaama axaasinakum axlaaqa soxna ummu Habiba bokk ci ummahatul muminin radiyallahu anha xam nga yonent saas dafa am ay waxtu yu mu jagleeloon ay soxna yoo xam ne ci lay wéetoo ñu dañ ci jàngal di leen ci yar euh, di leen teg ci aw yoon nga ndax ndax jikko ju rafet ji nga xam ci la ko sun boon tagge Euh, ba mu nekk ba mu nga xam ne moo nekkoon uswa bi gën a mag noonu la defare woon ay ñi ko jege ñëpp ay soxnaam ak i njabootam ba ñoo ñëpp ñu nekk ay ay royukaay ji ko ju rafet soxna Umu Habiba mi dafa laaj yoon saas ne ko yow yàlla yónni ndax xam nga nit bu fekkee dafa tabbi aljanna soxnaan tabbi aljanna ka nga yoroon fii yaa ko yoraat foofu ci aljanna maanaam ki nekkoon sa soxna fii ci àdduna su ngeen bokkee tabbi aljanna mooy doonaat sa soxna foofee ci aljanna soo soxna Umu Habiba laaj yoon saas ne ko waaw nit so jigéen su fekkee dafa fi ñaari borom kër dafa kenn mu faatu ba mu am keneen mbaa mu tàggoo kii jël keneen jël ko ñoom ñëpp bokk tabi àjjana ko cee doon boroom këram mu ne ko ahsanuhum xuluxa wala ah li ahsanihima xuluxan bu fekkee ñaar la li ahsanihima xuluxan ka ci gën rafet jikko rek moo moo moo ko yoraat foofu kon la nga gis ne kon kon li li am solo lépp kon mi ngi juddoo ci jikko ju rafet doole woon ci xadis boobu ne ko yaa umma xabibata dahaba xusnul xuluqi bi xayrey dunya wal axira yow mu yow xabiba na nga yëg ne jikko ju rafet yóbbaale ne ji yiwu àdduna gu alaxira mi ngi ci jikko ju rafet waaye yiwu alaxira mi ngi mi ngi mi ngi tukkee ci jikko ju rafet kon lu am solo kon ñu xam ne bis sax nit dana dem ba àgg ci darajaam jaam kaw foo xam ne jëfandu ko fa waaye jikko ju rafet moo ko fa yóbbu sala sama ko wax nee na ñi ko daan jikko ju rafet daan ko yóbbu bis penc mu bokk ci daraja yi gën a kawe rajo yi kawe kawe kawe ak wàccuwaay yu tedd te fekkoon ku néewoon ak jaamu yàlla waaye jikko ju rafet moo ko yóbbu foofa inna la abda la loxo bi xusni xuluqihi azima darajaat al axira wa sharaf al manazil wa innahu la daifun fil fil ibada kon yàlla na suñu borom rafetal suñuy jikko dafa ndimbale tawfiq yàggal fii kilifa gi Seex Mamadu Muntaxa yàlla na fi yàgg loolu te yàgg ci gannaawam yàlla na sunu maam boole dimbale boole defal tawfiq xiir nu ci njub te saxal ci te def nu dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa te Sëriñ Tuubaa nangu nu sunu taalibe wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala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 alhamdulillahi alqaa'imi ala kulli nafsin bima kasabat almuhsi ala ibaadihi jamiica acmaalihim qallat aw kasarat wa nashhadu annahu alladi laa ilaaha illaa huwa shahaadata cabdin waharat tawiyatuhu wa asra ضاقت بالإيمان سريرته وتنورت ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير موجود شهد به خير أمة للناس أخرجت صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين كبرت مكارمهم وكثرت أما بعد فيا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأني تؤفكون تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا الظلم فإنه يعيب العامة كما يشين كما يشين الخاصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عبادي كلكم جائع صرعما قصده منكسرا متواضعا لا إله إلا هو لا مانع لما أعطى ولا معطي لما أصبح له مانع أحمده لا أني أحصي ثناء بحمده قاطعا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مقبول الشفاعة ومجاب الدعوة ويسر أسبابه وفي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ببعث نبيه الكريم راعيا وفيما ينفعه يوم يقوم الأشهاد مجدا وساعيا لا يرفع شكواه إلا لمن يكشف بلواه ولا يعلن دعاءه إلا لمن يجيب المضطر إذا دعاه dalikum allahu rabbukum fa tabaraka allahu rabbul alamin huwa alxayu laa ilaha illa huwa fadcuuhu muxlisina lahu ddin alhamdulilahi rabbil alamin gafara allahu zunubana wa satara uyubana wa tahara qulubana yaxfiru llahu lana wa lakum wa li jamiil muslimin amin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 الله أكبر الله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 الله أكبر والسلام عليكم وإنك لعلى خلق عظيم وجهت أبكار أمداحي لمن شرحا صدري به الله عند البحر فانشرحا وجهت أبكار أمداحي لمن شرحا صدري به الله عند البحر فانشرحا أثني على المصطفى في البحر مرتضيا عن الذي قد كفاني من حوى مرحا نجاعيا لي ربي بالنبي وزري صلى عليه كما أعداءه جرحا نويت مدح نبي الله سيدنا محمد من سطى والقتل قد قرحا كرامتي مدح من قد ساق لي غرضي bilaa adan mutkafaani kulla man qabaxaa karaamati madxu man qad saaqani aradi bilaa adan mutkafaani kulla man qabaxaa liman kafaani al-idaa fi al-bahri mughtariban madhi lada al-barri bahran faaqa maa sabaha عظامة المصطفى قد كبكبت جيفا ولوا فرادا ومثنى لم تدع شبحا lahu xitaabiya fi duuri wa karramani xatta tafaaraqtu man aada wa qad nabaxa anta rasuulu alladi maa mithluhu basharun yaa man bihi lbay'u fi l a'daa'i qad rabixa خذ الثناء من خديم لا يرى ضررا في سرمد